Jumba duling

yàlla suñu borom ginnaaw bi nga xamante ni jóge nañ foofu ca terrain ba nga xamante ni moom la ñu tàmbalee liggéeyal Baye Abdou saar foofee ca Diofior wax dëgg yàlla gis ngeen liggéey bi fi mu toll tey ñu bari ñi nga xamante ni ñu ngi suivre Papignon Social euh, dañoo dégg Baye Abdou Sarr xamuñu kan mooy Baye Abdou Sarr Baye Abdou Sarr mi ngi ni toog dund na ay coono ak i métit yoo xamante ni. wax dëgg fa yàlla fu ko jaamu bi yàlla natt rek weesu na ko wax dëgg yàlla Baye Abdou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Pape. yaa ngi am jàmm. macha allah maa ngi am jàmm. Baye Abdou cosaanam dëgg-dëgg Diofior la fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee sunu boroom teg ko nattu wax dëgg yàlla mu amee jafe-jafe ci wàllum doxam mu am problème mu ay tànk ba léegi mënul dox moom Baye Abdou wax dëgg yàlla Baye Abdou ci lan nga daan liggéey. ak ça jafé jafé la fekk ci nga ko def. bi de eh, commencé commerce bo yàlla wuyuma ci commerce bi bi ma wuyé commerce bi nak eh, machallah ma sant et eh, ci wuyu nga ne na mais dema dema dema dem un certain moment mu melni nit yi dañoo xab talu ci sama kaw Baye Abdou commencé na ci tuuti Baye Abdou magaay bi daal e, nu mu kiyee daal e, mu nekk lu nga xamante ne daal ne am na ay nit yu nga xamante ne daal gis loolu daal ak gis seen butit daal moo moom la ñuy yéemale ñu dal ci sama kaw e, yàqal ma ma dem itam loolu yëpp jànk ma may jànkoonteel ma muñ ko et demaat war a redémarrer bi ma redémarrer encore ma demaat boo yàlla defal ma xiiwal xiiwal boobu encore et nit yi defaat beneen vent de bi nga xamante ne comme marée bu njëkk ba ñu defoon ñu def ne boobu daal comme def na ba mu échappé daal bii daal dañu war a yóbbaale bakkanam daal benn yoon daal et ñu mun a am piir daal e ci biir loolu nag ñu ñëw nekk ñeenti nit daji bitig bi ma doon jaayee fekke ma ci biir e jël ay jaasi di ma gor di ma gor di ma gor boo yàq sama yaram yëpp guddi boobu nga xamante ne gor nañ ma boo yàq sama yaram ci guddi boobu laa gijee dox parce que doon naa doxe ak kan waaw benn tànk bi la wàññente bi am mais beneen bi dara jàpp ko ma doon doxee kan nag di jëfandikoo ci kan di ko doxe mais keroog guddi boobu biñ ma goree boo tey mënatuma eh, eh, defal sama bopp dara. bi nga xamante ni eh, lan la ñu lan la ñu yaakaaroon ci yow ba taxoon ñu ñëw di la gor. yaakaar boobu man ci sama bopp dama doon liggéey ak crédit mutuel. ñu am kóolute ci man lool ma am kóolute ci ñoom parce que même su ma defee prêt wu ay millions ñoom ci seen bopp yàlla ak yonante bi nga xamante ne ak bamel bi ma toogee nii su ma defee demande bi balaa mu jot semaine wala mun ta ñaari semaine ñu jox ma sama xaalis pays bi itam mosta am benn gàllankoor depuis 2001 ba 2021 bi ma jëlee près wu sept millions neuf cent nag ci dafa mel ni dafa am ñu nga xamante ne dañu yëgee affaire bi ci kees ba mel ni dañ maa topp ma toog bu ñu daji bitig bi wax ne euh, xaalis bi la jël si ma ne leen ban xaalis yoruma xaalis ñu ne ah kañ yor nga xaalis yor nga xaalis ma ne leen yoruma xaalis mu ne balaa muy kii sax da ngay sa bopp. te dañ lay faat jël alal bi lii ci génn nag soo ñu joxee alal bi nag duñ la faat man ne leen lu lu leen neex def leen mais man sama bopp yoruma dërëm ñaari yi dugg si ñooy gor ñaari yi taxaw di def protection ci mbedd yi nga xamante ne ñu ñëw ci côté bitik bi pour ñu bañ leen a bet ci dara loolu lañuy def ñu góor ma góor ma góor ma góor ma boo li ma génne ci deret ñuy ñëw yëpp njëkk dal ci man dañoo yuuxu parce que fooguñu woon ne deret bu baree ni mun na génne ci doomi Adama sax ba mu kii ñu wax ma boobu nag bi may dem foofu mu mel ni yàlla def ma préparé woon ci loolu mais su nekkut woon loolu sax xëy na sax sama bakkan mu munoon na des suñ ma goree. ndax ñi def loolu xam nga leen. ñi def loolu xawuma leen parce que ay pël la ñuy lakk. mais xam naa nag ne am na ñu nga xamante ne ñoo leen conduire doxuñu ci nen parce que ñoom ci seen bopp fi ma nekk eh, fi ma nekkoon eh, ñooñu gisuma ñu foofu ñu nga xamante ne dégg nañu pol booy kii noonu te ñi ma gisee seen jëmm yooyu itam nit yooyu xàmmeewuma leen foofu ci gox ba mais am mun na am nag ñii taxawoon ci biti itam di xool nit yi mu am ñu nga xamante ne mun na am ay sama mbokk séeréer yi nga xamante ne mun nañu raaxaale ak ñoom nag wax leen ne dem leen balaa ñuy dem mujj ñu xàmme. ndax lu jiitu agression boobu di am euh, nan nga daan dundeek sa waa dëkk ndax da leen a mës a lebal dara lu ñaaw ba tax ñu mën a am nga jàpp ni ñenn ci ñoom dañoo bokk ci euh, complicité agression boobu ba yàqal la sa àdduna yàqal la sa alal bàyyi laa ki coono ndax da nga cee amul. man sama bopp mosuma am benn divergence ak euh, ay doomi aadama divergence bi ci jiitu dem na boo ñu wax ne eh, événement naar yi bi nga xamante ne am na naar yi ci seen bopp yoral naa leen bor bu nga xamante ne fay naa boru crédit mutuel mais naar bi bor bi nga xamante ne moo dox sama diggante ak naar yi fayuma leen parce que dama leen waroon a fay mu bokk ci alal bi nga xamante ne moom lañ ma njëkk a yàqal yaa ngi dégg. mu am ñu ngemb defe ne ab Abdou ci boppam comme alal bi mu yoree naar yi ñoo ko ko bàyyee daal e, naar yi daal mu mel ne dafa am ñu nga xamante ne ñoo jóg ci seen tur daal lu ma ko mun a waxee parce que noonu laa ko xalaatee rek defe ne daal ne maanaam comme alalu naar yi la da dañ koy nanguwaat ci moom jël ko e, mu toog. naar yi nag billaahi ak eh, weer weeru rasulullahi bii ma nekk nii nag dama leen ko yoreel ñi nga xamante ne ñoo yàq sama alal itam incha allahu taala danañ ma ko fayee nii wala ñu fayee ma ko nale parce que baalu ma leen ko ci àdduna baalu ma leen ko ci àllaaxira parce que xam naa ne man sama bopp naar yi de dama doon jënd ci ñoom su ma doole fi mu yëgul ñu jox ma ko mais waxuma woo leen ne. sarax leen ma ngir nangam ñoom itam saraxuñu ma dañ ma ne woon ne comme bitik bi suñu bitik suñu commerce bi yàqu na fii Sénégal fi mu nekk nii te yaa ngi liggéey ak ñun di rafetal e, dañuy yëkkati alal bi jox la e, li nga ci soxla li ñu waxoon sax ma xam ne su ma ko jëloon sax xëy na sax e, balaa may kii sax ñu ñëwoon rey ma. mais man sama ko ma jël ci lu nga xamante ne moom moom laa mun a lijjante loolu nag bi mu amee nag eh, ñu def loolu ma am ku nga xamante ne jox naa ko ne pour mu liggéey kii bi loolu itam ay seede dañ ci taxawoon mais kooku dox ba convaincre seede yooyu seede yooyu ne seedeetuñu ma xamante ne loolu yëpp eh, li nit seede to wax ne seede ma man Abdou tiituma ci parce que keroog allaaxira incha allahu li ñu ci wax su dee bés bu mujj ba am na yàlla dina leen taxawal fekk yéen ci xarale yu bees yi yéen a mun a denc dara vidéo bu nga xamante ne mun na def dix ans ci kii yi te soo ko soo ko tapé mu mel nii tey lañ koy door a tapé man sama bopp lu ma tiit foofu man Abdou am am amuma ko. ginnaaw agression bi lan lañ la yàqal ci sa àdduna. sama àdduna yàq nañ ci lu bari parce que def nañu loolu. bi ma njëkkee am soxna ñu commencé ci soxna bi ne kii nga xamante ne dara jàpp ko muy dox ak ñaari tànkam mankewul dara e, ñëw jël e, lafañ bi mun a am jabar bu mel ni jabar bu mel ni dafa jomb lafañ parce que ñi amul problème mu handicap sax pour ñu am jabar bu taaroo ni e, wax dëgg lii daal déedéet foofu la iñaan bi commencé ñu dem boo moom ci boppam mu di ma wax ne am na ñu koy bunu xataal di ko wax ne tasal sëy bi li nga doon yaakaar ci moom affaire bi yàqu na tasal sëy bi mu ne ma nag man Abdou ma ne ko ah mu ne ma man gor laa munuma dugg ci sëy bi ba ñu kii nga dem ba ñu yàqal la sa liggéey ma génn ci jëral na ma sama bakkantu tu sama bakkan du ko fekkee ma ne ko déedéet mu ne billaahi li ma la wax sama bakkan du ko fekkee ma bàyyi la dem di beneen ngóor denc ma tu nga nekk fii dara jàpp la ngay dund sama ngóor mayu ma ko damay dee rek e wuute ko ma ne ko li ngay wax de ëpp na de mu ne ma loolu ëppul ëppul beneen ngóor kañ doo dootuma xam à part yow mi nga xamante ne yaa ma xam noonu la def boo jël buum faat boppam. allahu akbar. noonu la def boo jël buum faat boppam. yaa ngi dégg. mu nekk lu nga xamante ne li ma ñàkk sax ci àdduna kii na meel kooku nga xamante ne ñàkk naa ko moom a gën a métti ci sama àdduna parce que gis naa ne ñàkk naa loolu ba mu kii mais gis naa ci li ngeen ci taxaw ci man boo tey àdduna bi muy am ñu nga xamante ne ñu ngi def seeni junni ñii di def seeni million to kii na mais boobu boo tey boobu laa gija am soxna boo fi mu nekk nii nga xamante ne lu métti la xam boo tey ne yàlla moo ko dogal ci man. bis bi nga bis nan nga yëgee ni sa jabar xaru na. moom daal e, ni ma ko yëgee moom dafa toog boo guddi ay booru fajar la doon jóg di bëj ay njël noonu man bi mu demee génne ba mu yàgg ci néeg bi ma foog ne comme dugg na ci waañ bi kii dafa génn génn bi war a génne jox. ci dugub bi pour euh, dem bëji ci guddi bi parce que guddi la doon bëj bi ma toogee ba mu kii nag dégguma affaire génne yëngu euh, mu dëb dëb yëngu dégguma beneen yëngu-yëngu ma jaaxle ma woote woote woote woote woote woote dégguma dara ma woote boo sonn dégguma dara ma jël sama euh, torse di nit gis tànk yi daal dugu nañu ci wañ bi mais gisuma mu ñu am gisuma dal benen ki bu génn ma def ni nit gis ko muy lang yaangi ngi ma gis ko muy lang ma xamne limu li mu dama doon def ne def ko doon wax nonu rek di mais limu wax limu doon wax dafa nek lu nga xamantene lu nek ci xolam la waaw nii la affaire bi demee daal et booloolu kii ma commencé waat itam di liggéey di liggéey di continuer di liggéeyaat ak crédit mutuel ak crédit mutuel ak crédit boo li am ma amaate départ bu baax a baax a baax a baax a baax crédit itam ku mu neex mun nga dem ci crédit mutuel nga gestu Abdou Sarr nga kii ko ne le euh, mars de 1964 euh, Ce ko kii crédit mutuel dañ la wax né mom ci bopam liggéey na ak ñun xol sama passe amul fu nga xamantene fu négatif la positif la parce que bor yi ma doon jël ba balaa ñu dem à échéance ma fay ko à à deux mois de l'expiration wala ma fay ko à un mois de l'expiration mais expiration bi Moustapha c'est te ma sama bor waaw. amul ku koy dégg. li nga xamante ni moo dal Baye Abdou Sarr te nga nekk nit di doomu aadama amee xol di yëg comme li nga xamante ni loolu la Pape Niang di yëg ci jamono bii ma toog nii di wax xam nga ni sunu Baye Abdou Sarr li mu dund dara gënu koo metti yàqal nañ ko alalam agressé ko dóor ko ay jaas yi yàqal nañ ko avenir am ak njabootam waaye yàqal nañ ko li gën a màgg ci moom te gën a cher moy tax nañ naqar yi nga xamanteni tek nañ ko ko ngir yaq adunaam ba jabaram mënatu la muñ loolu atanatu ko ba tax mu dugg ci neeg bi gàll buum ci baatam xaru mu yëg ko ak mettit yëg ko ak tiis woo xamante wax dëgg yàlla ku ko xool rek xam metti na waaye ginnaaw bi nga xamante jot nañ ci mbiru baye abdou sar man pap ña ak fadel ñang sama doom bàyyi dakar bu social ñu def ci liggéey bu am solo bañu fexé fexe ba mu fay bor bi nga crédit mutuel mu nekkoon 7 millions neuf francs ñu fay ko ba mu mat sëkk wayé ci ginnaw ci lolu dafa amat problème bo xamanteni amna ndax li nekkoon sama yéné moy sax nekkul won sax fay bor bi ndax kérok ba fi ñëwé la xamni crédit mutuel kayit yeeg lepp lèr ni midi wax dëgg yalla comme du ñëpp nag ci dëkk bi mais am na ñenn ñoo xamante ni wax dëgg yàlla li ñu xam ci Baye Abdou Sarr te mu rafet xamaluñ ko dara lu ñaaw seddal nañ ma ci moom kàddu yoo xamante ni tax na lépp lu nit mësaan a wax ngir découragé ma ci liggéey bii nga xam ni coowal mbott la mënta teegee ne naan ci déeg Pape Niang li mu jóg ni da koy def ànd ceeg bon volonté yi ngir gën a taxaw Baye Abdou Sarr dara duñu ci dindi donte ni euh, mënul ñàkk nag léeg-léeg ay wax yoo xamante ni dalay lay découragé ak ñoo xamante ni dañu lay won ni ñoom ku la bëgg la ñuy fekk na loolu ñuy wax yëpp dafa am plan bu ñu lal ngir li ngay juglu ci Baye Abdou mu bañ a am waaye ginnaaw bi nga xamante ni suñu borom yee nañu ci loolu dañoo ni nag muy neex mbaa muy naqari ñuy dund mbaa ñuy dee kër Baye Abdou Sarr dañ koy àggale donte ni bis bu nekk dañuy def ay vidéo ngir àggale ko danañu ko àggale ba mu àgg ndax mu jóg ci néegu location jóge ci yëfi jàmbur te ñëw ci mbiri boppam ginnaaw si loolu bi nga xamante ni ñëw naa fii ci Diofior amoon naa benn mbébét ginnaaw bi ñu fayee bor bi mooy néeg bi nga xamante ni ci la Baye Abdou Sarr nekkoon moom ak njabootam moom ak soxna Aïcha ak euh, sëtam bi nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy tout tànk soxna Aïcha ñu bokk benn néeg li ci gën a garaaw mooy buy taw da ngay xool ne zinc yi dafa bënn fu nekk taw bi yëpp day wàcc ci seen kaw ci koo xam ne mënta déplacé wu ma amoon initiative bu toj néeg bi ba mu jeex tabaxaat ko ginnaaw bi nga xamante ni ñëw naa ni Baye Abdou tey dama bëgg kañ nga gëj a génn mu ni ma ëpp na ay at génnuma néeg bi ma ne ko tey dama bëgg nga génn tracel ñu fi nga bëgg ñu defal la fi néeg su ko defee ñu daal la fi defal néeg waaye mu mel ni bis boobu la problème yi gën a démarré bi nga xamante ni génn na ngir ñu toj néeg bi rëdd na fi nga xamante ni fa la ñu war a amal néeg bi wax dëgg yàlla ci la ñenn ci ay mbokkam daal di koy woolu daal di koy mu tegu mu toog ci fauteuil lant bi ñu buux ko ba ci seen biir ni ko daal nangu nañ nga defaraat néeg bi mais mayuñu la ngir nga tabax fi benn néeg keroog laa xaacu ma ne bis ni ki tey dinaa kër kër yi ba Baye Abdou Sarr am kër noonee la ki nga xamante ni mooy monsieur le maire bu Diofior def geste bu rafet def ko nag fi mu ko war a defee waaye def ko ci ku ko jar a defal muy Baye Abdou Sarr mu may ko terrain trois cent mètres carrés fii ci ginnaaw ci boru école bi ma jóg ak pas-pas ak yéene tàmbali liggéey bi ànd ceeg bon volonté yi ñoom soxna Mbacco bàyyiwuñ ma benn yoon nekk ci accompagnement bu ama am solo léeg-léeg soxna Mbacco woo ma pap ma ne ko waaw mu ni ma fu liggéey bay abdou sar ba toll mbaa kër ga yegg na ma ko kër ga day dafa mel ni dañuy jàppoo di yëkkati mu am ñoo xamante ne dañuy jàppoo di bës ngir kër gi bañ a yegg mu ma ah mbir yi de doy na waar waaye nañ bàyyi ak yàlla suñu bopp loolu mooy kàddu yi soxna mbaaco wax dëgg yàlla kër gi ñu liggéey ci liggéey bu am solo dem nañ ba defar fondement bu baax defar li nga xamante ni mooy élever ko bi ñu demee ba raser ci élévation bi nag ci la kër gi mel ni dafa am rupture xaalis bi ñu yoroon jeex mu mel ni suñu dugalee vidéo sax amaana kenn du ñu faale wax dégg yàlla kër gi nag diisoon lool suñu kaw ndax bi ñu koy tabax danoo demoon ak yéene waaye demuñu woon ak xel ndax li ñu amoon yéene mooy tabaxal ko étage li ñu amoon yéene mooy tabaxal ko terrasse li ñu amoon yéene mooy tabaxal ko kër gu baax goo xamante ni dana gën téeméeri junni yoon kër gi nga xamante ni fa la nekkoon juddoo fa yaroo fa ba ni màggee ni ba lépp li ko dal génn Diofior gi nga xamante ni fi la ko dalee moom Baye Abdou mu dund ko ci anam yoo xamante ni anam yu doy la tey nag ñu dellu siwaat fii ci Diofior tàllal loxo jaamikat yàlla yi tàllal loxo ñi nga xam ne xamoon nañ kaaw Baye Abdou Sarr tàllal loxo ñi nga xamante ni dégg nañ li Baye Abdou saar di dund lépp ñi nga xamante ni ay borom xol yu làpp lañ ñi nga xamante ni ay borom yërmande lañ wallaay lazi laa ilaha illallah saaku ciment xeebuñu ko béton xeebuñu ko ñu xeebuñu fer ñu dara kaay leen ñu ànd taxawu Baye Abdou saar ngir këram gi yegg nga jàpp kër gi taxawaay bu yàgg bi lu ko waral <laughs> waaw Baye Pape taxawaay bu yàgg bi boo tey rek ci yàlla la parce que lépp lu tàmbale rek yëgg ba ci loxo suñu borom la man ci sama bopp itam awma ci benn découragement di sant internet yi nga xamante ne yu góor ak yu jigéen yi nga xamante ne ñoo ci jàpp boo fi mu toll nii looloo tax man itam duma caalit mukk voilà ma doylu yàlla doylu yonante bi e xam ne incha allah fi mu commencé boo fu mu yëg e pour mu àgg nekkul lu nga xamante ne jafe na yàlla léegi nag e ci biir loolu liggéey bi ma demaat ba mu kii parce que jaaxle woon naa li nga xamante ne moo arrêté liggéey bi ba mu kii parce que liggéey bi bi mu arrêté mu nekk lu yàgg lool mu nekk lu nga xamante ne nekk na métit ci yow nekk métit ti maama mbàccoo boobu nga wax bu nga dem boo moom ci boppam mu yëkkati dara teg ko ci sa loxo ak lii jaamu yàlla yi teg ci sa loxo bi nga toogee boo wax ne ñëw wax ma ne foraatuwaat naa dara maa ngi lay sant di la gërëm pap to xam ne kuy wutu góor eh, soo gisee pap rek eh, bul ko bàyyi te xamal ne góor a ngi nii parce que mënoon na dugg ci sa loxo nga euh, am nu nga xamante ne nu nga ciy defee te duma xam ne lii jaar na ci sa loxo Pape mais comme defaat nga boo ñëwaat boo defaat beneen pas ku commencé waat mel ni dangay refondé waat wax dëgg aw ma leneen lu may wax lu dul di la ñaanal yàlla. Eh, boo yow yaa xam li nga bugg ci sa àdduna pap yàlla na la ko yàlla defal to defal la lu raw sa njort ak ñi nga bokkal association ànd taxaw ñu wéré di ak eh, eh, chaîne adduna boos bi muy Dakar Buzz bi ma wax ne chaîne àdduna boos la léegi nag ci biir loolu mënuma leen a fàtte lu dul di leen di sant di leen di gërëm te incha allahu taala su dee yàlla mooy yàlla ñaan naa yàlla ñaan yonente bi E, ci barke weer bu mag bi incha allahu taala e, ni nga xamante ne lépp luy jokkoo ci rasulullah rek ci àgg rek la mun a kii looloo tax tiituma affaire bi pap xam naa ne incha allahu taala dina àgg dina àgg bi nga ñëwee nga wax ne li ma foraatu déppa Abdou bari na de parce que yoruma ko woon ci sama loxo de dañ ko kii rek ma ma jot ko mais am naa yaakaar ne yàlla dina ko àggale ma bugg a tàmbalewaat nag su dee ñaari néeg moo ciy pare wala mu mun a dem boo ñetti néeg lépp lu ci kii rek dana ci kii dinaa ñëwaat encore defaat vidéo dama ñëwoon daal boo woon la ne lii la ñuy tegaat ci sama loxo ma gis ko keroog itam ma bëgg lool nag gën a bëgg ni nga xamante ne dellu si nga itam war a commencer ci li nga xamante ne moo jot a jaar ci sa loxo nii nga garder woon ko depuis le mois de euh, avril. boo te yàlla eh, eh, tuddaat nga mun a dellu si waat eh, ci loolu boo ci ni ngay jëndee li nga commencé ci matériel yi incha allahu taala may ñaan jaamu yàlla yi man ci sama bopp de soo gisee may toog nii booy tàllal loxo ay samay moroomu jaam ne dimbale leen ma dama xam ne su ma ko defee sama warugar la su ma ko deful sama warugar la parce que yàlla moo wàññi sama cër mais mosuma ko woon a def de bi ma bi ma doon amee sama wér-gu-yaram dama doon liggéey di suturaal sama bopp di suturaal sama njaboot ma dem nag boo wéree di ñëw ay nit ñëw ma dugal ci wéree di itam parce que su dee doon naa dem di continuer di dund ji liggéey kon mbootee itam damay continuer itam di doon raam sax mu noon di jóg sax di raam di génn néeg bi sax wallaahi wal kitaabi kon du may wax benn jaam ne kiyal parce que damay lijjante lu nga xamante ne dana ko mun a euh, dajale toog jano ak moom e ku nekkee ku nga xamante ne yéen na ma war sakam mu ñëw jënd kii e ma defoon itam comme ni ma ko defoon ci bi ma doon jaay dama doon wax ne damay jaay comme ni e, nit yi yëpp di jaayee mais ci njaay bi itam képp ku ñëw boo jënd ci man dafa mel ni dafa am sarax bu nga xamante da nga am da ngay jënd boo pare comme li nga ko war a jëndee li muy jar mais da nga ci am saraxu yàlla da nga ci am saraxu yàlla parce que loolu mooma mun a yëkkati def maçon mënuma bay mënuma nap, mënuma lenen, commerce bi laa mën kon nag jërë ngeen jëf may ñaan internet yi yëpp e, ngeen jàpp ci rek ci ni ko waxee ciment fer béton suuf lépp lu ci nit mën e, xeebu ñu yéemul maa ngi koy ñaan képp ku nga xamante ne feeñ nga ci itam yàlla boo nëbëti illaa yawmi diin e, képp ku ci feeñ itam bésu njaqare ba muy bésu yawmal xiyaam yàlla nga bokk ci mbaar ya nga xamante ne mbaaru yirmande yi nga xamante ne rasulullah moom lañ koy mbaaral ci ñi nga xamante ne ñoo ko doon lebal macha allah yàlla li ci nit def rek yàlla bu mu nekkee ndimbal bu néy nati incha allahu taala maa ngi leen di sant di leen di gërëm góor yi ak jigéen yi mag yi ak ndaw yi may ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi jàpp ci maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci dëkk bi ak ginnaaw dëkk bi yëpp maa ngi leen di ñaanal. Eh, maa ngi leen di ñaanal sutura ak xiiwal voilà parce que ci biir loolu encore eh, liggéey liggéey liggéey bi ci boppam eh, mënuma ci dara de liggéey bi yéen a ko liggéey ak internautes yi Abdou amu ci kii mais maa ngi leen di ñaanal daal yàlla dëgëral seen taxawaay eh, sàmm leen ñii nekk bitim réew itam to mosuñu cee feete ginnaaw itam ñi amul kayit yàlla na leen yàlla may kayit ñi nga xamante ne ñoo am liggéey itam yàlla yokk seen liggéey ba ñu yegg ko mu defal leen promotion. Pape mun am lu nga xamante ne mitti na ma lool booy lii xew ci weer yi passé muy immigration clandestine bi muy ci désert bi muy ci géej bi bakkan yi ci des rek. to mu nekk lu nga xamante ne seen sutural rek lu leen sutural rek moo leen yëkkati ma di leen ñaanal itam eh, ñii tabb ci géej. Eh, yàlla ñu dëkkee arjanna firdawsu ñi des ci désert bi itam yàlla ñu dëkkee arjanna firdawsu macha allah jërëjëf ñang mbaalo maa ngi leen di ñaanal gudd fa nag wér gu yaram jërëjëf Baye Abdou balaa ñuy wàcce kàddu yi tamit danañu ñëwaat ba léegi ci eh, wax dëgg yàlla kër gi nga xamante ni Baye Abdou Sarr dëkkoon na fa fii ci ginnaaw booy dugg Diofior te kër gi wax dëgg yàlla dafa luye woon waaye kër gi mu mel ni amoon na benn jaan boo xamante ni fekkoon na Baye Abdou ci biir nekk ci biir karo yi wax dëgg yàlla nekk ah, ñu bàyyi ko ah ñu génne ko ci waaw waaw baax na